waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall at mu jot bu ñu bàyyeekoo ci màggaluk Touba gi li nga xam ne moom moo des ci màggal gi dañuy dajale lépp dem jébbal ko ki fi nekkal Serigne Touba di xalif général des Mourides loole moom lañ amal ci alxamis ji dëppoo nag le 29 septembre 2022 am di Fall moom Serigne Modou Mbend mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall ak jëwrinam di Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ñu yebal Serigne Assane Fa Ndiaye moom Serigne Mbacke Fall. mu ànd ak mboolem rakkam yi ñu dem ci sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou jébbal ko addiya ji mu toll ci 11 million de francs CFA ak juróom fukki nag ak juróom-ñeenti giléem bokk na ci addiya ji muy addiya ji nga xam ni mooy bàyyeekoo ci barabu maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ni dañ koy dajale ba at mi jeex ñu ñëw jébbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba. loolee lépp moom lañ jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou di xalif général des Mourides. bi ñu agsee Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Aminta Fall mi nga xam ni moo yoroon kàdduy Serigne bi leeral na lépp Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. sëñ bi nee na addi jàngoog sëñ Cheikh nee na egsi nan ma ngi ca daara ja nag yi ak gileem yi waaw sëñ bi ne lii mu lay bëgg a jox mooy liggéey ba bàyyi ko woon ca mbayu mbàqee ma ban koy bay. kon mbokk yi Serigne Falilou mu ngi nuyoo ci turu ay kilifaam di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuho nee di delloo jéggalu bu baax nag ci kàddu yi ñuy yëkkati rek nga xam ne bu ñëwee ba fi sëriñ bi waratunoo wax waratunoo yëngatu danoo war a mel ni ndee ci loxoy way sang ya waaye nag lépp lu la ndigal def loo loola taw féex la ak topp la waaye boo ko deful ci ndigal nag ak mooy lay doon nee ca suñ kilifa yu baax yi ñu àndal ñoon ñoo ko ne woon bu sëriñ bi ñëwee jottalil kàddu yi kon ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ñu koy wax sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibra Fall ja moo yónnee ci yow tey jii nee jëwriñam yi mu yónni ci yow nag sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mooy jëwriñam waaye moom sëñ Cheikh it ay rakkam la yebal sëriñ Assane Fall ngi nii moom Serigne Mbacke Fall Serigne Cheikh Mbacke Fall a ngi nii moom Cheikh Momadou Moustapha Fall Serigne Falil Fall ngi nii. moom itam moom Serigne Mbacke Fall Serigne Mor Talla a ngi nii moom Serigne Ablaye Fall Ndar ak ñun murid yi ànd ñoom ñëpp nag ñëpp nag ay ndaw lañu di jottali kàddu yi am Amdi Fall nag yoo xam ne neewoon na nan la ko wax nee na mi ngi jottali ay cantam yu wér ak i ngërëmam ci liggéeyub Serigne tubaab bii nga leen yoral te defe ko ni ko borom bëgge woon kon nee na ñu ngi lay santal Serigne Touba di la santal Cheikh Ibrahima Fall di sant nag suñ cantuk bopp goo xam ni bisub Serigne Touba bii jàll nga xam ni moo ko woote woon wax ni koo xam ni sama mbég sa mbég la bis bii bu ñëwatee nang ma ci santal yàlla sunu borom bis bi nag mbàkke bi mu egsee bis day bari na lool waaye ni bis bi jàll ren jii bett na ñu baree baree bari ànd na ak mbégte ànd ak i cant ànd ak i xéewal ànd ak i ngërëm ne loolu yaakaar naa musta amee nii loolu nag danoo wax ni tàgge bu nekk day am jàppal diw kon bu melee nii sa borom day ci sa jëmm ji ko jaarale Mbàkke kon nag Mbàkke ñu lay sant bu baax a baax ci xéewali Sëriñ Tuubaa yi nga xam ni sottiku na ci àdduna jépp ak àllaaxira jën jëm ba ñëpp bokk ko xam kon ñoo ngi ñaan nag ci dara ji Serigne Touba barkeb Cheikh Ibrahima Fall jëwriñam ja sa jataay bi Mbàkke yàlla na doole yàgg yàlla na nga fi gën a yàgg yàlla na nga gën a wér ba li nga bëgg a liggéeyal sa maam ju baax ja fas ko yéene liggéeyal sa waajur wa yàlla na la sëriñ tubaa man loolu lépp ba nga defe ko noo ko bëggee rek te ànd koo murit yëpp sëriñ bi nee na mi ngi dellu nag di yeesalaat ak njébbalam di feddali ak laxasaayam di yeesalaat yitteem ci liggéey bii ko sëriñ Tuubaa di liggéeyloo jaarale ko ci yow mii nee na sant na ci yàlla nag bu baax waaye nee nag mi ngi sant nag njabootu Cheikh Ibra Fall gi àndal xam ni boo ko waxee rek bàyyiwul kenn kër Cheikh Ibra Fall gépp lay waxal ba ca kër maamam jee nga xam ni mooy kër maam Saliou Fall ca jëwriñ ji di Serigne Assane moom daal fépp kuy wuyoo Fall nekk jàppale nga ko ci liggéeyu Cheikh Ibra Fall bi ba mu egg foo xam ni bett na ko lool nee na woyof na tooy yi ci moom it nag kon nag nee na mi ngi delloo sàkku nga dollu ko ñaanalal njabootu Cheikh Ibra Fall gi ak mboole murit yi ba li nga bëgg rek. ñu man ko ci yàgg koo jëfe lool ndax seen bëgg gépp mooy man sa bëgg rek bun manee li nga bëgg nee suñ xol dina sedd kon sëriñ bi nee na mi ngi sant cey gërëm bu baax a baax di ñaanal ñépp nag di ñaan jàmm nag ci àdduna bépp rawatina Sénégal gi ñu nekk rawatina nag yoonu murit wi ñu nekk nee mi ngi ñaan daal fu xéewal nekk na ko fa Serigne Touba jëlee indi ko teg ci loxo jullit yi rawatina loxoy murit yi ban man la cee liggéeyal Mbàkke ne ñi ngi sant bu baax nag nee waxoon na ni nag bisub sallallahu alayhi bii ci kanam muy gàmmu gi daanañ ko defe ji Thiès waaye dañuy nag ñëw laaj ci ndigal buñ ci amee ndigal ñu defe ko fan ko daan defee buñ ci amul ndigal noo ko bëggee rek Mbàkke ñu defe ko noona loolu la waxoon ni nan la ko jottali kon Mbàkke jërëjëf njaboot gi nag ñëpp a ngi ni teew xoolal ñëpp rek mbakke defar ñépp rek ñu yokk saayir ak baatin waaw waaw waaw waaw waaw sëñ Ngounda Fall xool na la xool ñëpp waaw xool na la nee na xool ñëpp Mbacke ba tey ci kàddu yi nee na Cheikh Bassirou alxuraan daa bokk ci jëwri yi doon liggéeyal seex Ibra Fall ba sa borom dogal nag mu ñibbi àjjana bàyyi fi liggéey boo xam ni bis la bun sàkkaloon maamam muy bisub seex Ibrahima Fall mu wax ni bis boobee ca la sa maam ja gërëme woon Cheikh Ibra Fall moo tax ñu di ko màggal fii ci Touba muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm wii sëñ bi nag di ci laaj ndigal noonu ñu ko daan def buñ ci amee ndigal ñu jàpp ko ca wéyal ko waaye nag ndigal moo nu gën a lul mën a am nee lul am ndigal ànd na ak sun bànneex ndax sa wu baax wa kat Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na sëñ Modou Aminta Fall bi mu doonee jëwriñ ni ko sëñ Modou mu ni ko mbakke mu ni ko suñ yaari kër yii daa am mbañ kër gii ma nekk di kër sëñ Touba ku toog fi ma toog war a digle digle woo war tere tere woo ku ko def ca toog fi ma toog lekk nga mbañum kër sëñ Touba ni ko sëñ Modou yéen ndax xam nga luy seen mbañ mu ne ko mbàkke buñ ko xamee dellu koo téye mu ne ko ndigal bàyyi koo kër sëñ Touba ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall te jëfewu leen ko nee na fu ngeen ko fi defee lekk ngeen bañum kër Cheikh Ibrahima Fall kon moom mbañ mbàkke doolu ñëw dimbali ba buñ ko lekk mukk dimbali ñu ba loo bëgg rek ñu man ko ñu jëfe ko nanga ko bëggee ba làq ci say ngërëm ndax ku am sa ngërëm am na ngërëmul sëñ Touba ku am ngërëmul sëñ Touba nag am nga ngërëmu rasulullahi sallallahu alayhi wa am ngërëmu rasulullahi sallallahu alayhi am nga ngërëmul yàlla sunu borom ca ngërëmul yàlla kat moo ñuy delloo fan bàyyi koo woon kon Mbàkke dimbali ñu man am sa ngërëm jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides santaan na bu baaxa baax waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci pasteef gi farlu gi ak dogu gi rawatina ci sax gi di liggéeyal Serigne Touba. sëriñ bi dafa alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Fallou sëriñ bi nee na dégg na kàddu yi bu baax a baax mu ne dégg na ko ci xol yi dégg nañ ko ci nopp yi mu ne yëg ne ko it ci jëmm yi mu ne kàddu yi yóbbaale lépp mu ne dafay loo xam ne rek mu ne kàddu yi dafa nekk loo xam ne rek dañuy gàttandu di ñu andil mu ne Pastef bu yees peq mu ne kàddu yi loolu rek la ko indil mu ne gannaaw lépp mi ngi Pastef rek mu ne kàddu yóbbaal na lépp mu ne xanaa di leen gën a seereel rek nag mu ne di gën a yeesal ak jaayanteem ci seen jëmm yi mu ne di gënal dëgëral ak laxasaay yi itam fas yéene ko gën ànd ak yéen rek mu ne sax dàkk ci sant sëriñ bi sax dàkk ci liggéeyal ko mu ne jataay bii mu ne jarul dolli dara mu ne yóbbaale na lépp mu ne loolee la yëg lool loolu xamoon itam mu ne xalaatutoo xam dara lu dul sëriñ bi mu ne kon nag yéen mu ne yéen yéene suñuy wéttal mu ne yéen yéen a ñuy fàttali mu ne liggéeyub sëriñ tubaabu bu réy bii mu ne yëg nañ taxawaay bi lool mu ne ci biir ak ci biti kon suñu lépp ak cant rekk la yéene ko ànd ko ànd ak rek. mu ne wax ne xolam sedd na. ndax moom weesu na foofu. mu ci seen taxawaay bii. mu ne dal na. yaakaaram it gën naa dolliku mu ne gën naa rafet njort itam mu ne kon sëriñ Fallou Fall kàddu yii mu fi wax mu ne lépp am na fu mën a dellu mu ne suñ borom dafa wax ne maa ngi fi sama njortal jaam mu ne fi sama njaam njort ci man rek foofu rekk laa nekk mu ne fii sëriñ Fallou nekk nag mu ne bokk fi nekk ak dong bokkam yii mbugguta nekk leneen lu du bokk ak ñoom rek bokk ak ñoom rek mu ne ci bàyyi bàyyi ndiku gi ak rafet njort gi mu ne wutuñu leneen mu ne ah, tey alaa kulli xaalin yéen yéenay royukaay yi mu ne loolu rek la mën a tëggee kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Fallou yëkkati moom moom la ko mën a tënkee kon nag jërë ngeen jëf mu ne mi ngi gën a gën a yeesal ak cantam ci suñu borom mi ñu booleeg sëriñ bi di gën a yeesal suñu cant ak suñu njëbbal ak suñu jaayante ak suñu bàyyindiku ci sëriñ bi mu ne kon daanaka loolu doy na mu ne du ci doolee dara day mel ni dafa dolli dara ci kàddu sëriñ fàllu yi mu ne te loolu doy nañu lépp bo doy nañu tey ci àdduna gii doy nañu euh, ëllëg ci dund ah. mu ne gannaaw doy na nag mu ne murit yëpp ñu ngi bokk di ñaan Cheikh Mountakha Mbacké suñ borom gën a guddal a fanam te gën a wéral ay yaram yaramam waaye sa jëwriñ jee nag ñu koy wax sëriñ Amdi Fall muñ moom sëriñ Modou Mbenda ñoo ngi koy sakkul ay ñaan nga gën koo fee yàggal lool gën koo wéral lool te gën koo mën a lim bëgg ci maamam ba mën la koo liggéeyal mu ne dañoo bëggoon ci ñaanu njaam mu ne murid yi nañ may jëwriñu waa Cameroun mu ne ndax dafa am rakkam joo xam ne moom mii muy sëriñ fàllu Mbacke moom sëriñ Sohibou daa mos a ñëw ci sëriñ Mor Aminta yor addiye joo xam ne mu daf ko wax ne moom nag addiyaam ji mu ne umpaliwul ne sëriñ Tuubaa mooy sama mu ne umpaliwul ne sëriñ Saliou xam na ma waaye dafa xam ne Seera Fall nag lu mu jox sëriñ Tuubaa dana ko nangu mu bëgg sama addiye ji mu teg ko sa loxo bii mu jox ko ci lo teg ko ci loxo sëriñ Fall mu joxaale ko sëriñ Tuubaa mu ne loolu nag mooy Serigne Cheikh Gueye Gueye mi mooy jëruñu euh, Touba Cameroun ak yaaw ak yaanduwun euh, Omar Gueye sa moom waaw waaw mhm. mooy El Hadj Cheikh waaw kii mooy El Hadj Omar xam na ko baax Modou Mamoun Diong waaw waaw mhm, mhm, waaw waaw baax bisimilah mu ne mooy lii mooy addiya waa Cameroun yi uh-huh. Uh-huh, uh-huh. jërëjëf minuel ak genn wàll wax na bisimilah mu ne ñoom nag ndeysaan mu ne am na mbégte ci ràññee sëriñ seex mii mu ne waaye eh, eh, Omar Omar mi nee na doomi kër gi la moom waaw doomi mu ne am na mbégte ci ànd gii ñu ànd ak sëriñ Cheikh mu ne loolu daanaka mottal na lépp rek waaw. Hmm? mu ne moom Serigne Fallou daana dem fekk leen fañ nekk. muy Yaoundé ak Douala. mu ne waaye ñu amu bëgg lañ ci sëñ Touba ak Cheikh Ibra mu ne liggéey sëriñ bi moo fi bàyyi mu ne doon leen dimbali baax baax mbake liggéey bu ñu la liggéeyal ñu gën koo man di yàgg koo def lool. ak ñoom murid fa nekk yëpp mu ne dañuy sàkku kër sëñ Tuubaa ca Duwaala ñi ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal leen ci ñu gën a am ak njàppandal bañ amee ne nañ ko bëggee bañ gën faa mën a nekk gën gën faa nekk liggéeyal sëñ Tuubaa jërëjëf bisimilah jërëjëf mu ne kii Amérique la bàyyi boobu Mbaye Diop laay moom tamit nekk waaw ne taalibe yi moom mu ne dañoo jiital addee ci lépp mu ne moo tax li ci ëpp lépp mu ne dañuy génne addee ji mu ne ber la jëm ci université bi mu ne waaye fii ñu toll nii ba bi mu fi toogee léegi addee ji ak li ci jëm lépp moom lay boole dugal ko ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi mu ne lu mu fa jëmewul foofu rek ci mi ngi ci beneen liggéey bi ci des waaw <laughs> waaw mu ne buñ la joxee liggéey bi rek mu ne buñ ci sañoon boole boole ci almet tegal la ci mu ne nga taal ko seen kanam Mbàkke mu ne day sedd seen xol guy mu ne buñ ci am mu xel yaar noo ko defee rek. neex nañu jërëjëf Mbacke mu ne am nañ ci yaqin am nañ ci yaqin bu baax waaw gàmm mu ne am ngeen ci ndigal bu baax a baax mu ne am ngeen digal ca Thiès mu ne am ngeen ndigal li ci Touba li ci Touba tamit alhamdulilah waaw sëñ Gunda waaw waaw mu ne am ngeen digal li ci Thiès ak li ci Touba na ñëpp tàllal seen loxo bismillah La ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah Ba la ilaha illallah Ba la ilaha illallah Ba la ilaha illallah Ba la ginnaaw bi leen cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou ñaanale ba noppi mbooleem njabootug maam cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñëwoon nañ ci ziar bi dellu nañ ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ni mooy xalif général des Baye Fall ñu leeral ko mbooleem li nga xam ni moom lañ jëlee ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ mi nga xam ne mooy sangam bi sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Modou Aminta Fall leeral na ko lépp. gërëm na la bu baax itam. nee na gërëm yàlla yaa ngi ñëw àll nee na ngi ñaan yaa ñi nga àndal sa yoonu maam bii li ngeen si bëgg rek li ngeen si bëgg rek Serigne Touba defal leen ko Serigne Touba defal leen ko si ngeen dajeeg taw feexam ngeen waaw xolam daal wax nañ ko loo xam ne moo ne wax nañ ko loo xam ne nee dégg na ko ci nee na dégg na ko ci xolam ci xolam dégg na ko ci noppam dégg na ko ci noppam téye na ko itam téye na ko itam waaw waaw waaw nga wax waaw nee na mi ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool. waaw waaw doon naa fi maam ji rek. nee loo naalal sa maam ji rek. bëggal na nga ko mën ko. ko te ko. di ànd ko njabootu ko njabootu Seera Faal gépp. waaw ngeen ànd ko bu baax a baax. waaw ngeen ànd ko bu baax joxe na ndigal li nga amoon ñu ko ko kees. suñu fa alxuraan itam bis bi mu daa def fii sëriñ Basiiru Fall na ci ndigal nee na na ne mënees na koo defaat fi ko daa defee rek waaw jërëjëf Fall jërëjëf Fall nu Fall taxawaaye mat na sëkk de te njaboot gii nga yónni woon daal matale nañ taxawaaye sëkk xanaa sëñ Siyaasu Njaay daa mel ne daa jaar jàdd waaye moom it ma nga woon sa jataay ba waaw waaye jëwriñ ji ñëw na waaw waaye sa njaboot gi yëpp daal taxaw nañ taxawaay bu rafet waaw moom daal na nga ko bëggee woon defe nañ ko ni waaw sëñ Mountakha nee na jàpp na la bu baax a baax. waaw bi ko sëñ Fallu waxee di sakku. ah seen dund gi seen borom yàggal ko. ne nee na téye na ko bu baax jàpp na ko bu baax a baax. nee na lu ko ñor la. waaw ah, nee na mi ngi lay ñaanal fan wu gudd ak wér. liggéey bi ngeen ànd ko lu yàgg yàgg. Ah, nee na xelam dal na lool xolam yi sedd na. taxawaay bii nga xam ne moom ngeen am. taxaw ko sëñ Fallou fàttali ko yu bari. sëñ Fallou kay kàddam gi rafet na lool. wallaay wallaay kàddam gi rafet na lool. rafet na lool kàddu yi de moom. kàddu taalibe sëñ Fallou kàddam yi rafet na lool. rafet na taalibe. waaw waaw. waaw yëpp dégg nañ ci la leen defloo ji woon daal def nañ ko. Mm. waaw si na ko bëggee woon. wala na kawe noona ñu ngi nii nag si sa kanam Fall. waaw waaw ñu nii sa kanam say rakk yi nga xam ne dañoo jaay seen lépp jënd ko taalibe bi ak sa doom yi ak sa taalibe yi nga xam ne soxlu ñu dara lu doon ay taalibe sag bëgg rekk lañuy ñuy dàkk li nga bëgg rek lañuy ñuy waaw sëriñ bi nee mi ngi leen di sant nee na mi ngi leen di gërëm nee na mi ngi leen di ñaanal nee na fan wu gudd ak ak wér nee li muy ñaan waaw muy sëriñ Fallou. nee nag mi jiite kàddu yooyu nga xam ne moom doon doxi sa mbooloo ma moom itam nee na gërëm na la ak ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi mu bokkal ñëpp nee na dara xëccoowuñu ko lu dul lu baax rek nee na lu baax li nu bëgg yàlla na nu ko am waaw Fall waaw ñoom ñii ñëpp de dañ ko jox kàddu gi waajuram yii ba nu àggee ñoom ñëpp dañ koo jox kàddu gi jox ko jox ko ndigal li mu mu wax si sa tur hmm. ak si turu njabootu Cheikh Ibra Fall gépp moom lañ koy sante nii ñoom ñëpp dimanche di ko sant si sa kanam waaw waaw waaw sëñ sëñ sëñ Assane nee na sëñ sëñ Fallu mi mat na ndaw hmm. ah, waaw nee na yar beeg teggin yi nee na ak taalibe gi nee na du lu yees lu yàgg la nee na waaw <laughs> loolu la ñëpp xam si moom Fall yàlla yàgg lool <laughs> jërëjëf Fall waaw yàlla na nga ko yàgg a taxawu yàlla na nga yàgg joxe addee ji ñu yóbbul la ko ñoom ñii dellu si nga ñaanal leen barkeb Cheikh Ibrahima Fall waaw waaw nee na xolam sedd na guy waaw nee na xolam sedd na guy jërëjëf Fall. sëñ bi day fàttali rek gàmmu gi waaw bi sëñ bi day fàttali gàmm gi ne ah, gannaaw am na ndigalul taxawu ko cees na nga xam ne noonu la noonu la ko defe woon daaw waaw mu mu mu koy fàttali mbooleem rek murid yëpp rek ak taalibe yi nga xam ne fas na yéenee dem cees doxal ndigal lool yi. waaw te mu ngi sàkku bu bu geesoo rek gis tali bi yëpp murit yëpp nu ànd ko waaw nan ko daa ànd rek Fall waaw sëñ Fallu nee na fas nañ ko yéene ànd ak yow waaw jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall la la la la